نقول الشيخ محمد المنتخى الخليفة العام لطريقة المردية حفظه الله تعالى ورعاه وأيده وزاد من نصره مجمع كتي مبولم بوك جريجيب أك بوك تالبي بوك تالبي مردية خمنا نعم لسنة ديال سيدنا تري جمع كتي مبولم بوك جريجيب mimman yaqbalu nasihata min axihi muslim ndax ku ne xam ne ne Sëriñ Tuubaa lépp lu mas di wax ñëpp doo koy boole jëme ko nag ci ñun bokkal réew mi nga xam ne dëkkandoo moo ko boole ñoom sëriñ bi nee na ngi nuyu ñëpp di ndokkee ñëpp ci weeru tëdd wi di weer wi nga xam ne mooy weeru koor di ñaan suñ borom lim ci digle ci ak jaamu yàlla yàlla ko nangu li nga xam ne wattandiku noonu la ko jiitam ci weer wi ndax dégg ngeen ci xadis ba la mu wax ndax weer koor dafa bokk ci farata yi ya ayuha allisina aamanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allisina min qablikum laallakum tattaqun waaye dégg ngeen ci xadis bi mu wax ne man man lam yada xawla zuhuri wal amala bi فليس لله حاجر في أن يدع طعامه وشرابه نين كيب كوخني آه، داغا وور تا سي تي وور باي وخي تياخن اك جيف جو نان يالا سوني بون ام سوخلا تي باي نيغي ليك اك باي نيغي باي نان كون يالا نيغي سوني بون ديمبلي با وير وي مي مانغو كو نيكو يالا ديلي كون سيرين بي نانا مي تي ندوكال بوكي جوليتام ييب نيغا خامي نيورو بوكال اسلام جي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 du ca tàggu kenn lam ci war a dana ko ci wax ne ko kilifa bu jëkkee daa defe digle gi ak tere gi rek koonoo mahal xaqi mahma kallafakumul amru rek fa la koy teg mooy li mu war a digle ak sañ ko tere na ko kilifa bi daa defe rek mooy wax li mu war a wax nit ñi buñ ko déggee jëfe jëfe ko mu jariñ leen buñ ko déggu ñàkkuñ ko jëfe rek boobaa moom wàcc kon loolu mooy li nga xam ne mooy li li ko boole diggam ak njabootu Sëriñ Tuubaa kon mu ngi fàttali ci réew mi xam ne fan yii xew-xew yi bari na lool rawatina bakkan ci rot loolu nag nee na la ci jëkk ci lim ci fàttali mooy delluwaat ci suñu boroom ngir xam ne bakkanu doomu aadama dafa diis danaa ci leeral li tax mu wax loolu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 bakkan yu rat bokku na ci natt yi nga xamni suñu borom waxon na ne dana leen ko tek wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juuxi wa naqsin min al amwali wal anfusi wa thamarati wa basari sabirin wa naqsin min al amwali wal anfusi kon xam ngeen ne bakkan yu rat bokku na ci natt yi suñu borom di wàcce ci mu nekk bala ci biir loolu nag ñu xam ne bakkan doomu adama dafa dis ndax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 mooy li ngeen tudde indemnité léegi tey kon loolu lu diis la ci suñu borom te loolu mooy ki nga xam ne tëyu ko ki nga xam ne dafa rey bakkan doomu ko nag kooku moom benn at la suñu borom wax mooy wa ma yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam képp ku rey bakkanu jil te ko kooku sawara képp la suñu borom wax ne fa war a dëkk kon bakkanu doomu aadama lu diis la خم ديس جيمو ديس نك مرحمنا من قتل الناس بخير الناس أو فصائل في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا كوري بيان بكن رك أتب نجا فاجا قال خير بيجي أدنى سب نخ بكن يب مو كومبوشو كومبوشو نك أدنى بخاله بكن دوم آدم مي جمبو boo gisee alxuraan lim ci santaane wax ne ku ray dañ laa war a rey kon wala kum fil xisaasi xayatun dañuy wax ne ni ko borom xam-xam yi firee mooy ku mu wóor ne boo reyee ñu rey la doo rey kon yow mi yow mi reyee da nga mucc ki ñu dana mucc ba ci res mooy diineem boo xoolee diine jihaat li tax fi ko lislaam di santaane mooy ngir nga défendre sa bopp wala ñu attaquer sa diine kon loolu boo ko see seetee atte boobu itam kon da ngay gisaat diisaay bi ba ca tool tool dollikuwaat mooy alalam alalam boo gisee lislaam santaane wassaarixu wassaarixatu faqtahu aydiyahuma aydiyahuma jasa bima kasabana kalam moo tax mu santaane ko sàcc ñu dagg sa sa loxo ngir loolu itam bëgg ko aar tax ba ca mooy askanam boo gisee mu mu tere njaaloo ngir bëgg ñu sàmmante askan yi loolu bokk ci li nga xam ne euh, lislaam euh, da ko da ko da ko da ko diisal kon loolu nañ xam ne euh, lislaam lu diis la ci moom bakkanu doomu aadama moo tax sëriñ bi nee ne mi ngi fàttali loolu jullit yi di ko fàttali taalibe yi na ci ñëpp bàyyi xel lépp loo xam ne mën naa indi bakkan bu faatu wala mu indi fitna rek nit ñi nañ koy wattandiku bu baax a baax te xam ne ku ko def ku ne sa bopp nga koy defal képp koo xam ne sàmmantewu loola itam bàkkaar ba suñ boon lam diggee woon euh, dara mënu ko dindi kon sëriñ bi nee na mi koy fàttali ñëpp di ñaan itam nag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 ndax nee na xam na ne bi fi Cheikh Sidi Moukhtar bàyyi ko ba ndege bàyyi woon na fi ay sànc yu rëy muy jumaay Tuubaa ji ak liggéeyam bali li Ndakaaru moom ci bopp mi tam ngir xam ne lépp loo xam ne taalibe yi am nañ ci doog rek Sëriñ Tuubaa da leen ci muy université bi yëg na ne nag ba ko tàmbalee ba ndege nit ñi ñu ngi ci def luñ mën ak luñ ci mënut ba weesu na sax fa mu ko séntoo woon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 te naqar wi kat bu dee bu continuer ñi ko war a saafara dañ ko saafara te buñ demee ba ba di ko saafara it dana àgg foo xam dugal kenn kon loolu itam nit ñi war nañ koy bàyyi xel bu baax te xam ne bu fekkee lu baax lañ bëgg wala ñu bëgg yee nit ñi war na am feneen ñu ko mën a jëme wala feneen ñu ko war a waxee waaye loo xam ne boo ko waxee jubloo ci dara du may jéem a yàq pëseefu nit wala ngay saboté ay nit loolu koo dëkkal te respecté ko sax te gëmoo ko ndax sëñ Abdou Lahad daa wax ne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 jàmm li ko mën a indi mooy kenn ku ci ne lala war sa digg sa morom nga sàmmante ko ci àq ak ak warmaal ko waaye nag bu fekkente ne dangaa warmaal sa bopp nungoo ko tudd ba noppi wëlbatu xam ne wóor leen duñ say nawale duñ say morom lu neex xëpp leen loolu bu yàggee bu fa jàmm jëkkee du fa mujj kon loolu itam ñu ci bàyyi loo xel ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne loolu ci seen loxo lay jaar yéen itam ngeen ci bàyyi xel ndax am na ci xam ne bu ko nit indee jëmee ko ci yow mu wóolandi ak yàqare te amul njariñ loolu boo ko jàllalee itam yéen yaar yéen yow atte mm-hmm. te in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu alxuraan dafa wax ne buñ la joxee benn information na nga ko vérifier ba xam ndax liñ la wax dëgg la am déet mm-hmm. ndax euh, lam cee bañ euh, fatabayyanu an tusiibu qawman bi jahaalatin fa tusbihu alaa maa fa'altum naadimiin mooy bañ nga joxe benn information boo demee ba ci mujjee nga xam lañ la waxoon wér loolu doomu aadama war na koy sàmmonte ci diggam ak boromam waaye war na koy sàmmonte diggam ak ay na doomu aadama ñu ngi leen di nuyu bu baax leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa li sadinatan bikum lil janna min daari minan yaatal minna